Jean Siba Diomaye Diatta ñu ngi lay nuyu. maa ngi ah, sa xel màcc loola ci communication ngay euh, enseignant chercheur maître de conférence ci fac lettres université Cheikh bu Ndakaaru. Uh-huh. Ah, tey nag euh, li des ñu jeexal campagne bi daanaka bëreetul euh, campagne bi nga xam ne fukki fan ak ñett dong la lañ ko daal di amal yow naka nga jàngatee campagne bi. campagne bi niñ ko jàngatee mooy juste euh, euh, regretter li li yenn yenn incident yu am mooy violence bu ñu nemmeeku ci yenn bërëbu euh, localité yi ci Sénégal ñun jàpp nañ ni élection présidentielle loo xam ni fête lay doon pour dëkk bi yëpp parce que ñun Sénégal dañoo dundoon loo xam ne dafa métti yoon nit ñi dañu buggoon yegg foo xam ni au moins dinañ dund lu neex. Mm-hmm. campagne bi neex comme deux mille dix neuf du mu neexee ma ma dikkee ñaar ñoom neexal ko. nit ñi di kaf di ree mais malheureusement gis nañ nit peut-être dafa am ay violence am na ay violence barki démb euh, Daaru Musti am na violence démb à à à Kaolack am na violence encore euh, euh, à à Sédhiou et d'ailleurs sax Ousmane Sonko keroog def na benn geste boo xam ni nit ñi ci bëri rafetlu nañ ko c'est-à-dire que moom dafa teel a avertir ni Amadou Ba mu ngi ñëw et que moom ragal na ni dinañ daje te buñ dajee xëy na dina am ay xeex il décidé mu ne moom dootul poursuivre campagne am dootul poursuivre chemin bi pour bañ ñu daje et mu replier Ziguinchor ba Amadou Ba romb mu dellu si loolu au moins c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut saluer parce que ñëpp jàpp nañ ni violence bi ñu ci nemeeku yëpp ci ñaari boor rek la jógee mooy booru opposition incarnée par Bassirou Diomaye Faye ak booru euh, euh, euh, parti au pouvoir incarné coalition au pouvoir incarnée par Amadou Ba donc ñaar ñooñu souvent ñoom ñooy gis Euh, ñoom ñoom lañuy gis ci ñoom mu am ay xeexoo seen biir seen biir e li ci gën a li ñuy seetlu mooy bu ñu dajee ñoom ñaari kuñ ci dajee ak keneen dañuy toog waxtaan saafante ñëpp gis image yooyu ñu kontaan gis nañ fi Amadou Ba dajeeg Khalifa Sall ñu waxtaan def lu lu rafet gis nañ fi Bassirou Diomaye Faye daje ak candidat Mamadou Aliou Mamadou Dia bu PUR ñu saafonte lu image lu rafet ci Sénégal mais seetlu lañ kam xeex bi surtout violence surtout si ñaari côté yooyu lañ daje c'est-à-dire bu ñu dajee soit seen militants yi seen caravane yi bu ñu dajee xeex yi si lay am donc loolu dañ koy regretter di mm. ñaan yàlla mu yem si parce que dëkk bi dafa soxla dal élection yi soxla jàmm lañ soxla donc loolu buñ ko gisee wax dëgg yàlla mënuñ ko lu dul rafetlu mm-hmm. maintenant lu ñu mën a seetlu ci e-, e-, e-, campagne bi mooy campagne bi contexte bi mu amee baax favorable parce que dañ nekk ci koor nekkee boo gisee koor bu ñu yegg nekk ci jamono koor chrétien dañuy woor musulman dañuy woor boo xamee ni yow séeréer yi souvent ñoom bu ñu wooree duñu mun a wax sax wax bay waxatuma la mobiliser di dem di yuuxu di di campagne donc tu comprends que effectivement fava campagne situation bi favorable euh, pour que nit ñi mun a mobiliser wu def campagne ci naaj bu tàng bi parce que c'est la chaleur. Mm. beneen affaire mooy ñun Sénégal dundoon nañu deux mille dix deux mille vingt et depuis deux mille vingt et un ñu ngi dund situation yoo xam musuñ ko dund nit ñi am mer nit ñi am ñi nga xam ni seen doom yi dañ dañ ci gaañu ñi nga xam ni seen doom yi dañ leen emprisonné ñi nga xam ni dëj la ñuy dund ba tey en fait moment de gloire boobu mënuñ ko woon exprimer parce que xol yi dafa dafa yëngu xol yi dafa dafa am lu lu lu métti lu leen métti donc jàpp nañ ni loolu bokk na et puis cherté de la vie boo seetloo tey lu tax nit ñi amuñu xëy na duñu mobiliser parce que dund bi dafa métti métti yaay boo xam ne ku nekk boo yeewoo yaa ngi daw uti loo war donc ci diggante boobu est-ce que nit ñi danañ am euh, temps pour accorder ko aux campagnes électorales mm-hmm. man jàpp naa ne xëy na yooyu yëpp bokk na ci li tax campagne bi taxuñ koo santi noonu effectivement mm-hmm. d'accord euh, ñëpp gis nañ ñi campagne bi ni mu tàmbalee demeewul noonu xumbul woon na dara waaye ñu gis ni euh, depuis euh, Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñu génne leen mu mel ni euh, campagne bi dafa am beneen tournure waaw loolu dëgg la loolu ñëpp seetlu nañ ko d'ailleurs boo gisee violence bu am diggante ñaari parti yooyu da ngay sentir di ñaari parti yooyu ñu ci ñoom ñooy xëccoo euh, euh, ndam li ñoom ñooy xëccoo ndam li et ku nekk xam na ni kii moo mën a kii kii ak kii ñun ñaar ñii kenn moo moo moo ci xëccoo ndam li loolu ñëpp xam nañ ni xëy na loolu war naa mun a nekk lu lu lu lu lu lu am lu am maintenant par rapport ak sortie Ousmane Sonko xam nga sénégalais dafa mus faral koo xam ne dañ koy noot sénégalais dafa mus a faral koo xam ne dañ koy noot ce qui fait que Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dañ leen tëj Bassirou Diomaye Faye sa li gën a métti mooy dañ ko tëj presque un na ñu xëy libéré ko te luñ ko jàppee indiw ñu firnde. Mhm. ba pare ñoom ñi ko jàpp ñoom ñoo wax ni noo dañu war a baalante donc sans pour autant ñu ñu ñu ñu ñu wax ñu la li mu def ndax def na ko te ñëpp gis nañ ni képp ku ñu accusé accusation ñu teg Bassirou Diomaye Faye mel ni ay terroriste attentat attentat attentat euh, projet d' attentat contre l' état l' autorité de l' état donc accusation yi ñu ko def dafa am doole yoo xam ni kenn mënul imaginer ni dinañ ko libéré te duñ ko jugé au moins wax ñu na def na wala deful léegi nag bu ñu gisee loolu ñi ci bari ci sénégalais yi dañoo gis ni effectivement li nit ñi doon jort que ñii dañ leen bëggoon a teg injustice dañ leen bëggoon a empêché ñu dem élection yi loolu moo am loolu dafay créer benn sentiment d' adhésion bu ngande nit ñi bari dañ ciy gis seen bopp injustice la ñuy bañ et malheureusement may li may faral di wax le pouvoir actuel xam nga en politique dafa am benn ce qu'on appelle l'usure du temps c'est-à-dire que nit ki bu yàggee ci pouvoir day dem ba finalement dootul am relation boobu dootu ko amati ak ak citoyen donc citoyen dañuy tourner le dos pour voir euh, ailleurs et c'est ce qui lui est arrivé donc aujourd'hui suñu combiner la la situation le fait que ñu tëj leen de façon injuste pendant autant de mois un an ñu ñu ñu bëgg jant bi nit koo xam ni c'est un haut fonctionnaire boo xam ni buñ ko libéré woon sans ba pare ñu mën a enquête enquête dina aboutir te du daw fel mhm. donc suñu nekkee situation boobu lool dafay créer denn sentiment d' d'injustice et sentiment d'injustice boobu dafay gën a tax ba nit ñu bare ja gis ci ñoom Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ay nit ñoo xam ni ni ñu wooyee système bi moo leen bëgg a tere pour ñu yegg fu ñu jëm alors que ñoom jàpp nañ ni ñooñu ñu ci bari jàpp nañu ñooñu am na am na amal nañu war nañu amal njariñ askan wi. Mhm. et et loolu pourquoi pourquoi loolu dafay am solo parce que ñun en communication on dit que la communication se base sur les relations de confiance c'est-à-dire que ñoom compte tenu de ñoom Bassirou Diomaye Faye wone par rapport à un bien qu'on appelle le bien politique et un bien qu'on appelle le bien non politique c'est-à-dire au-delà du programme li que de, de, la personne. Et aujourd'hui, Bassi Ndom Bassi Diomaye image bu ñu refléter aux yeux des citoyens et que ay nit ñoo xam ni dañoo dañu leen teg injustice boo xam ni ñoom il faut que ñu fajal leen ko looloo tax mu am autant d'adhésion et puis quoi qu'on puisse dire Ousmane Sonko boo ko gisee li muy mënee campagne parce que xam na ni moom li liñ ko tëjee woon xeex xeex la woon pour pour moom et que buñ ko jàppee ba léegi. ñu bëri jàpp nañ ni moom il a été victime d'injustice dañu bëggoon def tout ba mu bañ a def candidat aujourd'hui qui n'est pas candidat nit ñi bëgg nañ ko rendre monnaie boobu en lui en lui faisant comprendre que oui ñun ñu laa ñu bu ñu la bëggoon dañ lay gën a bëgg et loolu ñëpp seetlu nañ ko gis nga nit koo xam ne dafa dañ ko to tuumaal suñ ko tegee lu métti buñ ko libéré te jàpp ni nit ñi bëri jàpp ni ñu ko tegoon amul day am benn élan de sympathie bu ngànn ci moom loolu bokk na loolu au delà de ça ñëpp seetlu nañ ni mais parti Pastef mooy parti bii gën a mobilisé lan moo tax manifestation opposant yi lan moo tax manifestation société civile ñoom ils attendent toujours Pastef pour mun a mobiliser ñoom ñooy mobiliser d' ailleurs gis nañ fi campagne électorale boo xam ne euh, activité de la société civile boo xam ne parti Pastef bu participer wu rek day am échec. donc moom dafa am capacité de mobilisation et ñoom yàlla daf leen may lenn loo xam ne ils ont un maillage national ce qui fait que fu am nañ fa ay ay leader moo ñëpp jàpp ni Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñoo yore woon xaram xoromu xoromu campagne bi d'autant plus que même avant avant ñoom ñi génn gis nañu campagne ni ma doon déroulé nit ñi sawar ñu woon nit ñi dañ doon xalaat ni loolu élection du am d'ailleurs même le débat par rapport au, au, au le débat politique la campagne électorale on ne sentait pas des affrontements du point de vue des idées nit ñi daaw waxtaan par rapport ak sànnante xeer wax di ñu nañu leeral li mais depuis que ñu li ñu libéré lañ ñëpp mettre le focus sur les gens sur le les deux là ce n'est pas pour dire aussi que Pape Djibril Fall ni moom dafa bëgg a débat ak Bassirou Diomaye Faye pourquoi def waru ko pour Amadou Ba bi nga xam ne moo nekk au c'est parce que ñëpp jàpp na ñi ñoo ñoo yore xaram bi c'est parce que jàpp jàpp jàpp nañ ñi ñu bëri jàpp nañ ñi ñooñu élan bu ñu indi par rapport à la campagne mais manqué woon na fi d'ailleurs loolu ñu seetlu nañ ko moo tax ñu bëri dañ doon naan ni président Macky Sall bu bëggee défaite xëy na du libéré Bassirou Diomaye Faye ak Sonko après ñu ñu tër euh, autant de mois en prison pour ñu def campagne parce que bu ñu mettre campagne ça va être beaucoup plus difficile pour ñoom ñu mën a contenir cette mhm. euh, kan nga jàpp ni moom mooy favori ci élection yi wala est mun que mën nañu euh, mën nañ xaarandi second tour wala mën na bañ a ñàkk am alors élection yi par rapport au favori wax dëgg yàlla képp koo xam ne am nga seetlu d' ailleurs par rapport à la violence bu ñu noté ci ñaari camp lay jógee parce que ñaari camp jàpp nañ kenn ku nekk jàpp na ni moom mun na gañe donc man jàpp naa ni favori ñaar la ñu Amadou Ba favori la parce que il a l' appareil de l' état Bassirou Diomaye Faye candidat la parce que moom il représente Sonko te ñëpp xamoon nañ doole bu Sonko am te ñëpp xamoon nañ tamit Bassirou Diomaye Faye nit ñi niñ ko niñ niñ ko amee ni amee ci moom considération par rapport surtout ak moom profilam nit ku dal koo xam ni xëy na dëkk bi nit ñi bëri yaakaar nañ ne xëy na ak ak dal dalom nit ñu war nañ ko mën a soxla donc man jàpp naa ni ñaar ñooñu lay mooy favori ñooy favori mais comme élection la ñii di mobiliser ci campagne yi certes ñoom ñooy mobiliser ci ñaari ñaari camps yi ñooy mobiliser ci campagne bi mais li ñuy mobiliser ñu ci bëri xëy na amuñu carte d'électeur ñu ci bëri xëy na rumbaay moo leen ñu ci bëri xëy na ñoom di leen transporter indi leen dëkk dëkkaan pour ñu ñëw feesal seen meeting yooyu yëpp bokk na ci c'est un peu difficile d'avoir de, de, de pouvoir mesurer kan moo war a mun a dem en fait tout est possible et d'autant plus que au-delà même des acteurs politiques bari une couche de la population ce qu'on appelle les indécis c'est-à-dire ñoo xam ni bokkuñu fenn ou ou non les indécis c'est-à-dire ñi nga xam ne xamaguñu ku ñu voté ak la masse silencieuse boo xam ni mooy ñi ñu woowee bokkuñu fenn ñoom ñu ngi toog di observer par rapport au déroulement de la campagne pour xool kan la ñuy soutenir kenn mënu leen parce que c'est de de de l'électorat boo xam ni bokkuñu fenn donc c'est pour dire que mënuñu am une projection par rapport ak premier tour ak deuxième tour mais tout e possible en tout cas mhm. nous sommes dans un combat tout est possible mhm. tout est possible et et et et cela donc ça veut dire que kenn ku nekk mën na gagner au premier tour comme mën nañ dem deuxième tour mais ñu jàpp nañ ni parti ñaari coalition yu gën a mag mooy Bassirou Diomaye Faye ak ak ak ak ak ak Amadou Ba. Mhm, d'accord mais beneen affaire bu ñu mën a wax mooy en fait on a dañoo constaté tamit ay leader politique yoo xam ne nit ñi amoon nañu yaakaar ci ñoom dëgg te kenn gisu leen fenn ku mel ni Boubacar Camara Boubacar Camara man dama am lu ma bett parce que man je m'attendais à le voir fu ne mais j'ai l'impression que je sais pas ndax li mu doon woote par rapport au report parce que moom bokk na ci ñi demandé woon à ce que l'élection soit reportée peut-être que moom parewuloon pour li nga xam ni marqué na ma ça m'a fait poser des des questions pour xam lan moo tax ba finalement ñi nga xam ni amoon ñu yaakaar ci ñoom seen seen seetlu ñel lu bare xaw ma lan moo tax. Mhm, d'accord euh, tey euh, parti démocratique sénégalais yéex na lool mu tànn que mu war a euh, soutenir ci élection yi la déjà am na ay militants yi nga xam ne jot nañu dem ànd ak coalition benn Bokk Yaakaar soutenir Amadou Ba yéexaay boobule tey bu dee après Karim Wade tànn na keneen ndax loolu mënul indi xajaloo ci biir PDS. non non man jàpp naa ne PDS su nekk nii. moom mënatul dara ci militant mi en fait militant mi kenn ku nekk intérêt lay seet PDS seen leader yi yëpp fi mu nekk nii ku nekk intérêt lay seet si Amadou Ba ci boppam ñoom waa parti au pouvoir ñu téye seen militant yi parce que depuis ba avant gis nañu ay ralliement yoo xam ni ay maire de communes ñooy rallié wu ñooy démissionné de de la coalition de Amadou Ba. Mhm. gis nañ ko Bounkiling seen maire bi dafa démissionné dem si Diomaye. gis nañ ko kawoon dem démb ak Kaolack ou seen mairesse bi dafa démissionné dem ci Diomaye gis nañ fi Daaru Khoudoss démb seen maire dafa démissionné dem si Diomaye mais lu waxatuma la PDS bi nga xam ni amul appareil de l'État PDS bi nga xam ni seen leader nekkul Sénégal donc leader boo xam ni nekkul Sénégal déjà mhm. parti am bi tas na parti bi ñu bari instant seen intérêt lu ñuy xool gis nañ fi démb ku mel ni Saint-Louis mi nga xam ne xam naa fa bu baax kenn koo xam ni moo yore électorat langue de barbarie ku tudd Ahmed Fat Braya ku am doole ci langue de barbarie bi décidé rejoindre la coalition Diomaye président donc soo seetlee soo seetoo PDS instant yi seen leader yëpp seen militants yi ku nekk day xool fu mu dugg parce que ki leen jiite nekkul ci disposition yoo xam ne ñoom jàpp nañ ni dina dina leen jox orientation mu gën et en plus de ça mu ngi yàgg mu ngi dafa nekkoon ci benn bataille juridique ñoom jël la ils ont perdu du temps parce que xamuñu ku ku ñu ku ñuy fal seen posture xamuñu ku ñu àndal ce qui fait que mais seen militant bi ñu leen xaar aujourd'hui les militants ils décident ku nekk leader bu nekk ils décident de de de voter ku ku ko neex parce que au delà de tout politique dañ koy def pour sa bopp defuñu ko pour parti l'idéologie du parti presque n'existe plus c'est des individualités donc ñoom bu ñu gisee ni PDS xëy na da leen di tapel et qu'ils doivent se positionner par rapport ak candidats yi nekk di dem euh, les candidats favoris mais hmm. forcément day indi benn fissure au sein du PDS parce que PDS tamit ñëpp xam nañ ni depuis bu ad Abdoulaye Wade demee PDS dafa am situ dafa doom situation yu métti mooy démission wu les principaux euh, leaders mooy ñoom ñoom ñoom ñoom Omar Sarr ñoom Aïda Mbodj ñooñu ñëpp démissionné PDS tax na ba mu am benn léegi nag bu ñu demee ba PDS dematul élection bu ñu demee ba PDS nekk ci tergiversation bu ñu demee assemblée ñoom tantôt ils sont avec Benno tantôt nekkuñu ak Benno mooy double jeu boobu dem na ba tax ba ñu bëri amatuñu crédibilité gis nañ ñu bari sax léegi ils hésitent à dire que ñoom PDS la bokk parce que ñoom jàpp nañu ne xëy na PDS dafa nekk ci jeu trouble boo xam ni kenn comprendre ko donc mm-hmm. le, il sera le parti le grand perdant de cette élection parce que le fait que ñu bañ a positionné comme en 2019 loolu day am conséquence parce que s'il ne se positionne pas les leaders à la base ku nekk day xool fan la intérêt nekk dem fa te boobaa PDS déjà tas na. Euh, Jean Siba Diomack Diatta ñu ngi lay sant di la gërëm. merci Sylvie. ci rek spécialiste en communication enseignant chercheur maître de conférence ca fac lettres université bu Ndakaaru lettres université bu Ndakaaru lettres